di sant yàlla bu baax a baax a ñu mayee ñu ñëw fii def li nga xam ni moo ñu war en tant que citoyen mooy voté ci élection yi comme ñaan suñu boroom élection yi am ci jàmm ci dal et bu jàllee résultat yi génn ci yàlla jaarale ci peuple réew mi ci loxoom inauguré Sénégal boo xam ni jàmm ak dal ak stabilité ak kaaraange dana fi mat Sénégal goo xam ni incha allah ndaw ñi dinañu mën a am liggéey dinañu am xëy Sénégal boo xam ni xéewal dina fi bari incha allah loolu lañuy ñaanal Sénégal yàlla na ko suñu boroom def di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord renouveler mes vœux pour un ramadan et un mois de carême d'exception à l'ensemble de mes concitoyens. Je voudrais également rendre grâce à Dieu de l'opportunité qui m'a été offerte de venir accomplir mon devoir citoyen de vote. Je prie enfin pour que l'élection se déroule dans la paix et la tranquillité et qu'au terme de cette élection, le prochain président de la République du Sénégal inaugure une aire de paix, de stabilité, de tranquillité pour le Sénégal, une aire de sécurité accrue pour les Sénégalais et leurs biens, une aire de prospérité, d'emploi massif pour notre jeunesse une ère de vie moins chère, moins coûteuse pour les pères de famille. Je prie pour tous que le Sénégal sorte victorieux de cette élection. Merci. Merci.